ngir mën a atteindre autosuffisance alimentaire Ali Diagne nekk jeune patriote jàpp na ni delluwaat ci suuf si comme ni ko seen leader Ousmane Sonko doon waxee loolu rek mooy solution bi loolee nag mi ngi ko doon xam ci gannaaw bi ñuy lancé li nga xam ne mooy VAP yi ci kër Malick ci diwaanu Malicounda. indi tool yi mooy les VAP vacances agricoles patriotiques yi nga xam ne depuis ça fait deux ans. ren di troisième année bi nga xam ne Ousmane Sonko bu mu ko lancé demandé aux jeunes ñu delluwaat si bay bi parce que économiquement mun nañ bay di dundee te tey l'histoire a donné raison à Ousmane Sonko parce que bu mu ko doon lancé c'était en tey ñu en avec la guerre de l'Ukraine tey Sénégal àdduna yëpp am problème blé donc loolu noonu tey bu ñu delluwaat ñu ñëpp si bay bi tey peut en autosuffisance alimentaire dinañ ko mun a mun a mun a mun a kiiwal incha allah. ñëwoon teewee li lancement vacances patriotes agricoles yooyu kii di coordinateur départemental bu Mbour di docteur Diété mi ngi rafetlu initiative bi nga xamante ne nii jeune patriotes yi jamono jii ñu ngi koy jël. c'est l'occasion pour les jeunes ñoo xam ne mosu ñoo xam mbéy ñu xam lan mooy valeur suuf te suuf mooy dundal te foog ñu gëm ko Sénégal fu ñu toll suñ lépp dañ koy jéegaan ni il est temps que ñu moom am suñ souveraineté. su ce plan alimentaire donc dafa laaj génie yi ak culture ñu delluwaat euh, ci mbir yi xam ni la jeunesse ñu delluwaat ci tool yi pour au moins am expérience bi mais aussi participer à la production nationale. Ousmane Diop bokk ci li nga xamante ni mooy Pastef moom mi nga xamante ni moo leen jox suuf sax gi ñu bàyyee mi ngi rafetlu élan bi nga xamante ni nii jeunesse Pastef jamono jii ñu ngi koy jël. Euh, di wax ni au moins que ni ñoom ñu ngi déglu li nga xam ne lii moom la seen président digle. xam nga li ci am satisfaction mooy que ni président Ousmane Sonko dafa jaar fii ñëw lancé VAP bi au niveau du département xam nga li ci gën am solo moom mooy loolu ñum xale yëpp ñu ngi yowoon teew te boobu ci jour boobu la xale yëpp jël seen bët teg ko ci li nga xam ne li moom la Ousmane Sonko il faut qu'on travaille la terre pour que ñu mën a dund. VAP yooyee nag euh, ñu lancé leen ci diwaanu Sénégal yëpp ci département bu Mbour nag jeune patriote yi nar a bay nga xam te ne nii mooy gerte ak ñebe koppar googu nag ñu ciy a permettre ñu nga xam ne nii moom lañ dëtmal.